le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1164 tests réalisés, 119 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,2%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 102 cas contacts suivis par nos services, 17 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Plateau 2, Maristes 1 Golf Sud 1 Wakinaan 1 Hann 1 Diamniadio 1 Grand Yoff 2 Parcelles Assainies Nimzat 1 Kaolack et Touba patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris 20 cas sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de zéro patient hospitalisé est stable. À ce jour, 4 759 cas ont été déclarés positifs, dont 2 994 guéris, 55 décédés et donc 1709 sous traitement. Le ministère de la Santé et de sociale exerce les populations à respecter au de nos communautés les mesures de prévention collective et individuelle. ci bésu tey bii asalaamaaleykum askan wi alxames fukki fan ak benn ci weeru juin jot nañu résultat yi ci mbas mi ñuy wax Covid 19 fii ci Sénégal ci junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent test yi nga xamante ne def nañ ko téeméer ak fukk ak juróom-ñeent dellu si nañu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu téeméer ak ñaar ñoom ñoo nga xam ne cas contact la moom la suñ bëri bu liggéeykaay yi di topp te di ko saytu am na ci fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne cas communautaire la ñoom nag ñu ngi leen topp tey ci diwaan yi plateau am na ñaar. Maris am na benn Golf Sud am na benn Wakinaan am na benn Hann am na benn Diamniadio am na benn Grand Yoff am na ñaar Parcelles Assainies am na benn Xaar Yàlla am na benn Fass Mbao am na benn Hann Maristes am na benn HLM Nimzat am na benn yooyu nag fii ci Ndakaaru kawlak am na benn Richard Toll am na benn Touba am na benn jël nañu tey téeméer ak juróom-ñeenti malade yoo xam ne bi ñu leen saytoo seen uh, yaram gisatuñ ci doomu jàngoro ji Covid 19 ñoom wër nañu. am nañu nag ñaar fukki cas grave yoo xam ne ñu ngi ba léegi si suñu bërëb yi uh, sewetaas yi ñeneen ñi nga xamante ñu ngi tëdd hôpital ñu ngi ànd ak tan ba mbas mi dalee ba léegi ñu ngi toll ci ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci nit ñi nga xamante ne ànd nañu ak doomu jàngoro ji moom lañuy wax cas positif ci yooyu am na ñeenti junni ña am na ngeen baal ma ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñeent 2994 donc ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñeent ñi nga xamante ne amatuñu doomu jàngoro ji juróom fukk ak juróom làkk nañu génn nañu àddina ñi nga xamante ne tey ñoo des ñu leen di faj ci leen hôpital yi ñu ngi toll si junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi delloo delloote di ñaax askan wi ñu topp tegtal yi nga xamante ne bu ñu ko defee ci suñu biir mbas mi ñuy wax Covid 19 dina génn Sénégal mu ngi leen di gërëm di sant wasalaam.